suñu mbokk yi jàkkaarlooñ ci duñu seetaan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu su ngeen jàkkaarlook image yu am solo yi ak xale yi nga xam ni ñi ngi jàng xasaayati seex ahmadou bamba xaadim rasuul ngeen xam ni ñi ngi dëgmal bis bu mag bisub diine bisub lislaam bis bi nga xamante ni sëriñ xaadim mbàkke moom sëriñ mbàkki mohammed ginnaaw bi mu tànnee lu toll ci ñaar fukki ndaw ak juróom-ñett ñuy jongante jàng xasaayiti seex ahmadou bamba xaadim rasul ci ay daaj yu fasantikoo daaj yu wuute lool ca daaj yu mag ña bismillaahi rahmaani rahiimi bismillaahi ikfinil akdara yallaahu safi baxa abi li fika yallaahu bismillaahi ikfinil akdara yallaahu safil baxa abi li fika yallaahu yaa abru yaa man la sarika ومالي لوأد في يا الله وجدك اليوم يا رحمن مرتديا فوزي بما سرت في دنياك يا الله أنت رحيم الذي أرجو برحمتي أن لا ألاخي دورا منك يا الله مالك يميني وخلبي السول يا ملكي بلا حساب بجود منك يا الله xadata siriya ya xuddusu murtadiyan hanni waan garadi tuddara yalaw anta salaamu lazi salamta kulli yamin huyo bi nafsin bi tay in min kayraw ahadu salli wal tusallim sarmada ala lazi sammaytahu muhammada ahadu salli wal tusallim sarmada ala lazi sammaytahu muhammada نافه صل سلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا نافه صل سلم كل حين على نبيك رئيس السالين أعد صل سلم في أبد على رسولك سراج من عبد لطيف صل أبدا وسلما على خليلك مراد العلماء لطيف صل أبدا مع السلام على سراجك الذي جل السلام اكتب له في آله والصابين خير سلامين ووضح لحبي حبل رسول الله في أقلامي بصارة يا من محا ملامي وجه لأفضل الورى محمد منك بصارات الكريم الصمد ملك نبي الله في أقلامي مسرة تبقى وسل الإعلام ورد بالفرقان ربي المهين ملة النفس وزازة الليل ورد بالفرقان ربي المهين ملة النفس وزازة الليل أغز من الدنيا وزاد للجنان وانقاد للهوى ولي سف الجنان ولاني الأبرار في أغرايا وانقاد لي بلند القرايا رافقني إلى الجنان جيم سوايا سوسي الرجيم ترزي عن اللين والفجار كون بدين عالمي نجاري أكرمني البديع بالكتاب وسانني عن جالب الكتاب على من علي ولا سوسدين له كل من هدايا مدين على من علي ولا سوسدي له كل من هدايا مدين سلام وساب وكل نزيم أديم سنا على المرتجى وصلوا عليه صلاة نزول فإني أصلي عليه بأهل وصحب وكل ginnaaw bi nga xamante ni def nañ quart de yi def demi-finale yi ña nga war a sóobu ci finale yi finale bi nag ñi ko war a séq mi ngi toll ci ñeent ci ay xale yoo xamante ni denn jàng xasaayati Seex Ahmadu Bamba Xaadim Rasuul waaye tam ñu xool seen comportement seen jikko ak seen ak yar lii lépp nag su ngeen gisee sëriñ xaadim mbàkkem sëriñ mbàkke Muhammad def ko mooy la sëriñ Touba Cheikh yu Mbàkke waxoon jox leen mam ndaw ñi ma def ci la sëriñ Touba defoon ca mag ña tànk yooyee la sëriñ xaadim mbàkkem sëriñ mbàkke Muhammad di roy kon nag bis baa ngi noonu mi ngi waroon ajjuma le 11 mars ca Taïf ginnaaw buñ jullee gee ba pare maanaam 22 heures ñi ngi woo mbokki julli mbokki taalibe yi xarit yi soppe yi wëllëreek am di jàmm yi képp kuy wax ashadu an laa ilaaha la rawatina jànqati jànkati xësde yi na kilifa diine kilifa aada ñi ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn kon nag rendez-vous baa ngi noonu Taïf le 11 mars ànd ak Serigne Khadim Mbacke moom Serigne Mbacke soxnaloo